di wér di wér di gën di wér guddal safan wi dolli wér ci barke samsu xarnu yi yal na la Yàlla may di wér di wér di wér di gën di safan wi dolli wér ci barke samsu xarnu yi halal ji ñëw ci réew mi tey mbooloo mi ne nan yaa ko bay jugal taxaw ba noon ya fay lan jafaloon ci xarnu yi xalaat di ci réew mi tey mbooloo nan yaa ko jugal taxaw ba noon ya fay lan jafaloon ci xarnu yi ilaha sa nguur gi rekk mooy nguur ku la jaamul ba xëy faatu perte la jaamu leen ko balaa ñaaw ku la jaamuwul ba xëy faatu perte la xul wallaahu ahad allaahu samad lam yalit walam yulat walam yakun la woog sa nguur gi rek mooy nguur yow yàlla yallaahu bil mustafa سنديدي الله وبخليلك إبراهيم يا الله يا الله بالمصطفى سنديدي يا الله وبخليلك إبراهيم rahiman ya allah wa bi kalimika mu sasaluhil khadiril wa bi suaibin wa is معي ليا الله وبي سليمان نور يونس اليشاعي وزكريا يحيى يا الله أذهبت خاتم لسوى ربي xool yëpp dem nañ ci sëñ Mor yàlla yàlla suñ boroom dolli ko leer mu jëmm joo xamante ni badar yëpp yëg nañ demam asalaamaaleykum maa ngi sakku ci mbooloo mi fi teewu rawat na jëmm yu baax yi nga xam ni yéen ngi ñu ngi leen di xoolee sew Xaddim ngir ñaaral ñu suñu baay bu baax boobu nga xam moom lañ fi nekkaloon di Serigne Mor Talla Gueye ñun de ba ñu juddoo ba léegi suñu daanaka ni mooy drapeau Badar ci ñun euh, moo ñu mooy représenté Badar ci ñun loolu suñu bàyyi woonoon ren jii nag mu mu dellu mu dellu ci diggante bi noo ngi leen ñaan yéen ñëpp yéen ñëpp nga xam ne yéen ñi fi ku ne am na ñoo xam def nañ fanweeri at yàgg fee ñëw mosuñu ko gis mu génn fii ngir lépp bàyyee woon kook suñu bàyyi ba di alhaaj Serigne Gueye mosu koo am ki ñaan ci dara mosu koo yàqal ci dara mosu koo taqatal ci dara te teewal ko ci barab bii te moom day moo ñu seereel ñu mën mii ak Serigne Saliou Gueye mu wax ñu ni sama waajur moo ko kilifaam jël si na ko yaayam jël si na ko fa mu demoon waaye ba alaaj sëriñ Gueye ñëwee wax ko ni ko dama bëgg nga dellu Badar nee na loola dafa mel ni sama bàyyi suñ moorasta moo ma ko wax ndax boobu ba ma koy wax mooy bu la ma la ma alaaj sëriñ nga joxaale ba ma ko ubbee bay doo ma yem maa ngay fàttaliku ba ma ko suñ mo mor asta di ma ko bindal sama àlluwa ma koy jàng mu mel ni suñ morta suñ morasta ma ko wax loolu ma ko mu nee na ma ko dëjaat Badar gii loolu nag loo xam ne lu ñu defal la ñun ñëpp yiroon njaboot gi bu wér wér daan ñu wéttali ñu ko daan wéttali ko mu nekkoon nit koo xamante ne nii maanaam lu ñuy lu ñuy wax ak mbaax ah, ak ak lewet lépp looy wax ci jikko yu baax lépp mu ngi woon ci ñoom ñoo ngi leen di ñaan ñun ñëpp kenn ku ci nekk nga def fatiha ah, def xul huwallahu ah, fukk ak benn ñu ñaanalee ko jëmm jooju te ñaanal ñëpp ñi nga xamante ni ñoom la fi bàyyit liggéey bi bañ a jëm suuf lépp jëm kaw bi jaxe newel Mustafa sallallahu alayhi wa sallam barke Badar bismillah di nuyu njabootug Badar Gueye gépp sëriñ Moustapha mi nga xam ni moo fi nekk di xalifu sëñ Mor di sama mag mi ci biir kër gi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax njabootug càmmeen gi maa ngi nuyu ñëpp di teg nuyu bi ci loxol sëriñ Omar mu jottali ma ko mboolem sëtis ku sëtoo ci sëñ dañuy ba nga ci am ak mbooleem ahlu badar yi yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di leen di nuyu daayira yi yëpp sëñ Ousmane maa ngi nuyu daayira Tëngéej di teg nuyu bi ci sa loxo daayira Géejawaay maa ngi leen di nuyu di teg nuyu bi loxo soxna Oumy nuyu daayira bi ci loxol Serigne euh, Ibrahima Thiam kon ci gàttal maa ngi nuyu ñëpp di nuyu itam délégation administration bi fi teew euh, di waa mairie bu Dingray te Pape Diop jiite ko ànd ak di adjoint maire ànd ak Ablaye Xari Ndiaye ak Pape ak Omar Diop ak Mout Diop euh, def nañ delegation bu am solo ñu ngi nii teew ci baas bi maa ngi nuyu bu baax baax yéen euh, di leen sant ci taxawaay bi ak teewaay kon ci gàttal maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di siyaar ñëpp di ñaan ñëpp ñaanal ñu suñu baram taxawuñu ñu ah, ñu sàmm ñu ba li ñu bëgg a liggéey lépp ñu liggéey kon sëñ Cheikh naa maa ngi lay nuyu bu baax yooyu tam di nuyu njabootu ala sëriñ Gueye yëpp rek bàyyiwuma kenn tey ji nag day bis boo xam ni dafa xaw a diis ci man lool ndax yu bari yi ci yi ci yi ci daje yoo xam ni ku ma sañoon ngeen may ma rek ma nuyoo gàttal kàddu yi eh, di ñaanal ñëpp rek sëñ Fallou sëñ eh, Ahmadou Khadim sëñ Takko ma ñaanal mbooloo mi rek suñu borom dott ci ñoom jàmm bi jaay Seexul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bismillahi ma jóg sos ay bayit wayati jàmbaari lislaam sëriñ moor naa ko xamleeti bismillahi ma jóg sa sey ba yit wayati jàmbaari lislaam sëriñ moor na ko xamleeti jàmbaari lislaam sëriñ moor na ko xamleeti gëm yàlla gëm yeneenam doyloo sëriñ tuuba ci lii la nekkoon ba xëy dem ñibbi wër naati lu mam jox sëriñam baatin ba kenn du xam zahir daa ande niñ le wér naati lu mam jox sëriñam baatin ba kenn du xam zahir daa ande nit ñi le wér tabeem nga ñëpp ko xam tabeem nga ñëpp ko xam baaxam nga yem na ku ne yaatoom nga moo waraloon ñëpp ko daa seeti Sëñ Mor Talla Gueye tabeem nga ñëpp ko xam baaxam nga yem na ku ne yaatoom nga moo waraloon ñëpp ko daa seeti moo laabiroon ta lewet moo laabiroon ta lewet moo laabiroon ta lewet mboojëm ma mu jéggi na xel yal na ko yàlla defal ay may yokkooti moo laabiroon ta lewet ma mu jéggi na xel yal na ko yàlla defal ay leer yokkooti xol yëpp sedd boo leen gisee ki ñu waxtaane nag heure buñ ko tuddee suñu xol tooy ku ko xamul dina la jaaxal waaye sëriñ Mortala amuñu woon ku dul moom xamuñu woon ku dul moom liggéeyal sëriñ Touba liggéeyal alxaaji sëriñ Gueye fii ci barab bi am loo xam ne faaw ñu seede ko ndax nekkuñ fi ñu am dara lu dul loolu rek sëriñ Mortala nee na bi ma nekkee fii sëriñ Mor Assa nekk fi neen taqoo woon naa moom taqoo goo xam ni suñu moro sa daana fàttu di nelaw nee na woo ma ma ñëw fekk boobu ñoo bokk kees gu ñuy tëdd nee na ba ma wooy ba ma ñëw nee ma ma ne ko bàyyi da yaa ma woo mun ma diir man woowuma la nee kon dama koo gént xool googu ko yar bi nee na suñ mor alima Guèye nee na sëriñ basiru ba ma toogee barab bii de booba tey suñ moo taari mi moo tax nekkoon jëwrinam suñ basiru yónni na ko suñ mor alima Guèye yónni na ko ci suñ basiru suñ basiru jël këyit wa wëlbati ko ni ndaw li nga fi yónni day ku yaru la ku baax la ku teey la sëñ Basiru seere na lool sëñ Mortalla Gueye mii sëñ Mortalla sant na la gërëm na la ñu ngi sa ginnaaw doxalal bis bii nga xam ni bis la ci bis yi dëkk bi di tamit di dëkk ci dëkk yi mu ngi leen di ziyaare bu baax di ziyaare taalibe yëpp di ziyaare daayira yëpp di leen jaajëfal te xam ni di leen xamal ni seen taxawaay rafet na alaj sëriñ day bis bi mu mujjee fii dafa woo mbagal càmm ci néegam ne ko man day sama bis bi rekk ma jaaxal mbagal mu ne ko sama bis bi rekk ma jaaxal waaye la ma doon xalaat ci bisam dey sa borom defal na ko ci lu foo ko njàppam li mu doon xalaat ci dëkk bi day sa borom defal na ko ci lu ko njàppam bokk yëpp bëgg nañu taalibe yëpp bëgg nañu badar ku fi dugg sa xol dana sedd ndax sagal ngeen xeet wi sagal ngeen bokk gi sagal ngeen taalibe yi yàlla na sama borom sagal ndax li jafe day ci xare moom ngeen def dëddu àdduna bàyyi lépp ñëw ci dëkk bi def lu lu seen bàyyi doon jéem ngeen def lépp ndakaaru gële amu leen fu brique ndakaaru amuleen fa brique waaye gis ngeen ni ngeen terale dëkk bi te sëñ bi nee dëkk bi ku fi am néeg moo yor sa trangay tey ak sa trangay ëllëg alaaji sëriñ dëkk bii képp fi samp sam néeg moo yor sa trangay tey ëllëg loolu nag ah, ab soññe la te ñi ko ñi ko fi def ko xool gis xam ni yokk nañ dafa wax ni samp samp kenn mënu koo daaneel kan kaala tan tànne walu ci samp samp samp kenn mënu koo daaneel waaye sama sama samp samp bu ma daaneel kaare tànnuwu la ci. ndax tey jii ñetti daayira ñoo fi dajaloo bu taxee boog see sama wax xaw a gudd tuut loolu lay doon ndax daayira bi nga xam ne moo fi nekkan ahlu badar bi nekkan Touba daayira boobu yàlla dafa dogal muy dox di dox di dox di dox wax naa ko ci bëccëg nee naa leen daayira boobu moom yàgg na ndax jamonoy alaji sëriñ la woon sëriñ alaji sëriñ soññu nañ ci ba tàyyi ku mos a gis na la mbaa yéen ngay doxal nga ne ko waaw géey mu ne ah waaw leen góor ca kanam rek loolu ca kanamam joojee nag ba léegi mooy dox moo tax ab sampam lii sëñ Ousmane wax na sancul alaaji sëriñ ab sampam kenn mënu ko daanee man xam naa ko lu ma wér ndax néeg bi mu wax ni nee na ko fi tabaxum néeg da am fa fajuk aajoog fii ak fanu jëm di xam ne wax ji daanaka jërul gudd ndax biñ tàmbalee wax ba léegi wax ji jenn ji dem na alaaji sëriñ Gueye baax loolu nag ku ne gis njabootam gii bés ku wax loo dof dof xam ko ndax wal baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi isni rabbihi waladi xabusa laa yaxruju ilaa daal loolu mooy li am dëkk bii nag moo mel noonu na muy Badar Gueye gi ndax ay kilifa ñoo fi nekkoon muy sëñ Badar Mayib doon ab ab xaadiriya bi sëñ bi ñëwee nu ñoom jël sëñ Omar ak sëñ Mor Asta ñoom ñëpp ñu jébbalu ci sëriñ bi wax nañ ne sëñ maam Cheikh Ibrahima Fall Babou Lamp Fall Babou Mourine bi muy seet sëriñ bi ba ñëw Badar Géej gii dana fii de xaalis mi ngi fi waaye ka seet nag day wurus mu Seexul Xadim waaye fii de xaalis a ngi fi bi sëriñ bi ñëw wooteegut daara alxuraan nekkoon fii naka jekk moom lu ma njabootu sëriñ bi it bari na ñoo xam ne jaar nañ fi bis bii ngeen tuddee sëñ Mouhamadou Amine Baara du hasard parce que sëñ bi daana ñëw fii bis bi at mu jot sëñ Baara ci pencum Badar mi daana fa gaare otaam yend fi ba jën sow la sama bàyyi ma ko wax ñu muy bind tànk nit ñi di bind seeni loxo kuñ ko kuñ ko bindal assuré ne ba déwén insha allahu rabbi di nga fekk fii la ko def ci pencu Badar mi bon tey bis bu ngeen ko jëlee duppee ko duppeeku ko du hasard li ngeen fi wax nag mooy li am solo mooy li ñuy fi indee muy jaamu borom bi subhaanahu wa taala doon itam taalibi Cheikh Bamba yu wér ndax sëriñ bi defal nañu lépp ca kàddug sëriñ Habibu ak sëriñ Baara mi nga xam ne yàlla dogal na moomoom moomoom kàddu gi bu ñuy wax ci waxa ca kàddam lañuy wax waaye su ñëwee it ci darajaam lañ ñëwee sëriñ tàkku ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaara fii nag moom mel na ni duñ fi gan ndax sëriñ baara yàlla dafa dogal li muy dogal ci moom ci digganteem ak sëriñ Seexuna te ñu baree bare ku xam sëriñ Seexuna mel na ni xamee nga ko ak moom moo tax sëriñ baara bis bi moom da koo jàpp muy bisu boppam jëpp na gan la jëpp na jëpp jëpp jëpp na ku fi ñëw rekk la buy ñëw sax noonu dañ koy tooñ dañuy wane ne cib dëkkam la jëm moo tax nu délégation bi toll rek mu xeeb moo tax tey bi muy ñëw saa bu ne buy ñëw rek mën nga ne sax day dolli ñu ci bokkutoon ci yoon woowa bi muy ñëw mi nga ànd ak sëriñ Habibou mais di léppam ci moom ànd ak sëriñ Khalil ma ci wetam sëriñ maam Balla mais moom mel na ni day doomi dëkk bi ba noppi nag doonaat suñ suñ lépp ñu àndaat ak moom noonu la ànd ak sëriñ Fallou ànd ko sëriñ Moustapha ak nun ñii di wax ak yéen loolu lépp rek di wane ak cofeel ak jàpp koo xam ne waa dëkk bi jàpp nañ ko ko waaye mboole mbokk naa noonu lañ ko def kenn ku nekk boo nuyoo moom day mel ni bu sañoon day mel ni moom rek nga xam xamoo keneen foo ci àgg rek muy góor muy jigéen ku mën a doon bu la joxee loxo da ngay gis xar kanam bi mu belli belli goo xam ne dana la wóor ne am na mbégte ci jataay bi am na mbégte ci gis bi loolu nag sëriñ Seexuna yal na yàlla yal na yàlla dëgëral waaye yal na yàlla kàttanal yal na yàlla gën a jàppale ndax ànd bi ni mu rafete nga dem ba yëgati sa sa doom tuddi ko ko kooku loo wax sa diggante moom wér na kon nag yal na yàlla dëgëral seen ànd te kàttanal leen te barkeel te barkeel jataay bi te barkeel ànd bi di nuyu euh, sëriñ Xaadim Guèye mi nga xam ni moom mooy chef de village bu Badar di la jot it nuru docteur Gadiaga mi euh, ngi lay nuyu bu baax di la siyaare bu baax euh, ndax fii moom niñ ko waxee rek dalal ñëpp waaye itam dinañ la nuyu seedeel la ay cant yoo xamante ni bii jóge na ci monsieur le ci kanam Serigne naa mi ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi toog euh, nekk nga chef de village bu Badar mais ku yëngu ci développement la te looy itam lu ñu xam la da ngay dem di lijjanti say partenaire ñuy indi ay xéewal mais bu ñu ñëwee nii nga def ngay def da ngay dem nekk ca ginnaaw bàyyi lépp ak bureau municipal bi ñu doxal ko loolu gis nañ ko bu baax ñu ngi la ciy sant bu baax di la gërëm di nuyu it Serigne Cheikhouna ak mbooleem njabootu Serigne Gueye bi Serigne Cheikhouna ñi ngi lay nuyu di leen jottali nuyoo docteur Gadiaga di feddali suñu kóllëre suñu digganteeg yow tey ñaan yàlla dëgëral la bu baax gën laa kàttanal bu baax a baax ndax ñun de fii ñu nekk gëm nañ ni bu ñu amoon ay kilif ay ndaw yoo xamante ni bii mel nañ ni yow waxuñu Sénégal émergent de mais dingaraay gi de moom wóor nañu ni kon dina émergent ndax fii de fekk nañ la fekkati la ci ci lan nga nekk liggéey ak jàngal ndaw ñi te loolu mooy doxal réew. kenn nuyoo bi nag li tax ma mujjee ci sëñ Cheikhouna naa ko ci jublu ndax li ma war a wax ci moom. mënuma koo dugal ci nuyoo kon maa ngi nuyu seexu naa di nuyu rakkam yi yëpp di nuyu wéjuram yi mu fi am yëpp di nuyu rakkam yi yëpp tam te di leen xamal ni eh, njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine yëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Moustapha mën nañoo wax sax na ñu ngi leen di nuyu ci turu seex turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ndaxte ñun fu ñu dem. mën nañoo wax ne moom lañ fa demal ndax Serigne Moustapha fu mu dem moom la fa demal te moom ci boppam nit moo ñu woo ba ñu ñëw mu ni fu ngeen dem maa leen fa na ko Seex Sidi Moxtaar di fa wax bi nag am nañ ci mbégte wax dëgg yàlla ndax ni ko waxee du hasard ginnaaw sëriñ Bara daf doon ñëw fii ah alaaji ji Serigne di fi taxawal bés di fi taxawal bés di fi taxawal bis ba bis boobu ñu jël ko tuddee ko sëriñ Bara kon yaakaar naa ni ñi mujjee ñi mujjee ñi mujjee ñi mujjee nuñ koy waxeeti sax ñi mujjee puso bi defe naa réerewul ci ñoom mujjewul puso bi waaw tudde na dégg nga sëñ Saliou nee na tudde na ko doom dëgg la kon tudde na ko doom eh, sëñ Sidi Mokhtar daf doon faral di wax ni comme comme lii sëñ Seexu naa def nii tey taxawul ci gàcce ndax seex sëñ Sidi Mokhtar daf doon wax ni ki taxaw ci gàcce mooy ki nga xam ne danga naan sama maama def lii ci sa ndijoor ñu ne ah kii maama ma fi man nga gestu sa càmmoñ nga ne sama bàyyee fi def lii ñu ne ah kii bàyyee ma fi man nee na boo xoolee ci sa kanam néew maa fi def lii yaa ngi taxaw ci gàcc te dëkk bi ku fi dugg ku fi dugg doo sëñ sëñ seexu naa dina wax ni maa fi def lii dëgg kon yaakaar naa ni ak léeg léeg léeg kon yaakaar naa ni moom la sëñ Sidi Muxtaar doon wax moom jaaram wàcc na kon nag dañu koy gën a ñaanal dañ koy gën a ñaanal ndax ñaan du doy te itam soreegul ndax yëggagul fa mu jëm kon nag dafa laaj ñu gën koo ñu gën koo ñaanal ndax sëñ sëñ Mbay Jaxate day wax dafay wax dafay wax ni dafa am lu sëñ Mbay Jaxate di woy su fekkoon ni moom sëñ Seexuna da koo def kon kenn du ko wax mhm. liñ ko wax fii kenn du ko wax sëñ Mbay Jaxate dane bul damoo sa jëfi ndey bul damoo sa jëfi baay yow mii kat jëfal ba sa ndey ak sa baay damoo sa jëf bu damoo woon jëfi alaaj sëriñ Géey wala jëfi waajuram kon du fi def dara nun taalibe yi nun murid yi ñoo ngi leen di dénk ragal yàlla ñoo ngi leen di dénk jaamu yàlla ñoo ngi leen di dénk nangoo liggéey ñoo ngi leen di dénk booloo nekk benn yi ngeen bëgg yépp def fii ñëw gis nga fu nit toog toogal fa sun borom tamit dëgg ci yow sunu borom daa la fek foofu fii nii xaw ma kañ la de xaw ma du neen fekk xaw ma duñ fekk waaye lépp a fii ñëw njogomaay ba ma fay dem ñi ma àndal la ngi nii fa lañ dëkk fekku ma fa lenn te ba ma yegsee sëñ Mourtala ba mu fa jëkkee ñëw daf ma ne boo fi toogee lépp daan la fekk lépp fa ñëw fi mu nekk nii. amul lenn lu ñu wutee loolu nag moom lañ fekk fii itam kon nag ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp sëriñ tàkko ñoo ngi dellu di tuub di di di jéggulu te di la ñaanal yàlla may la fan bu gudd yàlla may la wér di ñaan sëñ seexu naa yàlla may la fan bu gudd may la wér yow ak sa rakk yi ak sa njaboot bi nga nekkal fii yëpp yàlla yàlla boo am gàccee ci ñoom ci barke sëriñ Tuuba mbokki jullit yi ñu ngi nuyu ñëpp te di jiital ci nuyoo boobu cheikhuna al muxtaar cheikh muntaxa mi nga xam ni moo nekk ci bopp yoonu murit di ñaan suñu borom mu gën koo dëgëral gën a yokk aw fanam ba naal yi nga xam ni moom la tàmbali mu mottali ko ba tàmbali yeneen ñu ngi nuyu it kilifa jotaay bi di sëriñ Tàkko Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadal moom xaadimul rasul di nuyu kilifa yi fi yi fi teew yépp sëriñ Cheikh kàddu yi dafa mel ni daa waroon a mujj ngir tëj jataay bi ndax matale na sëkk li ñu war a dénkaane lépp war koo leeral lépp indi nga ko ci kàddu yu gàtt te jotale yàlla na la suñu borom fay waaye nag loolu dafay dal xel ndax ñi topp Serigne Touba bëgg ko lañu ko toppe waaye bëgg bu àndeek xam ci lay borom di mën a jariñoo te loolu ngay def mooy tax ba nit ñi ànd bëgg gi mën a ànd mën a ànd ak xam alay sëriñ gi daan na wax ni bëgg suukar deesul nattable bëgg gi mu bëgg suukar ndax moo tax ñu tuddee ko waaye des na ko fekk ci am soow mu lab te la ko ko la ko waral mooy bëgg gu àndut ak xam kon yàlla ñu yàlla defal bëgg gu ànd ak xam ñu bëggoon nag tey jii bëggoon waxtaane tomb boo xam ni mooy doon sunub yóbbal ba ñuy dellu siwaat tomb bi moo di muñ suñu boroom dafa wax ni wa tawaasaw bi sabr yonente bi sallallahu wax ni as-sabru nisful iman nee na jàppante leen ci muñ yonente bi sallallahu alayhi wax ni muñ bu diine doon bu doon ñaar benn ba mooy muñ muñ nag li tax ñu jël ko bëgg cee wax tuuti mooy xew-xewi jamono waaye dinañ ci egsi ab ab jullit nag bu ñu ne ko war ngaa muñ mën naa yomb ci moom ndax li mu jàpp ba war a muñ muy ay exemple ak i misaal ak i masala dafa bari lool tàmbaleel ci yonente bi sallallahu alayhi wa moo gën ñëpp li gën a baax ci àdduna gën a baax ci àllaaxira moom la su borom tegoon ci ay loxo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dund na ñeen fukki at yoo xam ni ah bu dee xéewali àdduna yi ñuy am de amu ca woon lu am solo amu ca woon luñ koy roye lu tax ñu koy tudd suñ borom jox ko li gën ci li ñuy joxe muy di jokkali digganteem ak jaam yi muy an nubuwa bi mu ko ko joxee def na fukki at ak nangam ci biiri mbokkam coono bu nekk daj na ko fa ñàkk ku nekk fekk na ko fa waaye dara ci loolu taxul mu soppi misaal mi ma ciy joxe mooy wax nañ ko ni bu fekkee ni dem nañ ba jaaxle ci li muy woote ñuy wax ko ni bu fekkee ni li nga bëgg mooy ak nguur mënees na la koo jox nga bàyyi li ngay wax su fekkee ni li ngay woote euh, alal la tax waxal loo soxla ci sunuy alal ñu jox la ko nga ëppale ñu waaye nga gis ni sallallahu alayhi wa sallam li ñuy wax ak yàkkamti dalu ko mu ànd ak muñ ànd ak boroomam ba jóge foofu muñ a ko jëlee màkka ci biiri mbokkam yóbbu ko ci barab yu sore sore sore ndax màkka ak medina ku fa dem xam nga ni diggante bu sori la ku ko dugg oto sax xam nga ni sori na waxantuma laa nag waxtu woowu nga xam ne dañ ko daan dox wala ñu jëlee julli fas kon dund yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mën na nekk misaal ci muñ dund saxaaba yi yëpp it mën na nekk misaal ci muñ Seydina Ali yéen ñëpp xam ngeen ni bokk na ci ñi gënoon ñi gën a jege yonente bi sallallahu alayhi wa moo ko yar moo def ci moom li nekk ci moom lépp yéen ñëpp xam ngeen ni bi ko yonente bi sallallahu alayhi di may doomam amul sax lu mu joxe lu mu joxe ak can te boobu baayam moo jiite jullit ñi te fu mu demoon laaj fa talal loxoom ñu jox ko la la mu soxla waaye yonente bi sallallahu alayhi moo nekkoon misaalam jàngal ko ak muñ ba mu nekk ci boppam ba loolu mënu koo def mukk kon moom misaal la rek waaye Cheikhul Khadim mi nga xam ni moo ñu dajale ci tànt bi dundam gépp muñ la sëriñ bi wax na ko léegi ni sëriñ bi bi muy génn fii wax nañ ko ni ku dëkk bii nga nekk muy Touba ak li ko wër aaral nan la ko mbooloo ngi fi ñoo xam ni loo soxla ñu defal la ko loo bëgg ñu defal la ko ab aalim la xaafis la lépp loo xam ni nit daan na ko fonke moroomam boobu sëriñ Touba amoon na ko laata moo génn foofu waaye la taxoon mu jug lu lu jëriñ doomu yépp la woon waaye nag la ko ca war a fekk dafa leçon bii ñuy wax muy muñ moom rekk moo waroon a nekk li nekk ci kanamam ak dëgër ak nekk koo xam ni sa waxi démb ak sa waxi tey lu mu jar daf la koy jaral kon dëkk yi ñuy wax yépp nag daarul Muxti ndindi fii ñuy wax di daarul alim al xabir daarul mannaan daarul minan tuubaa gii ñuy wax cheikh abdoul ahad mbàkke nettali nañu ni bu yàggul dara nit dan na fi sebet am ndox ay dong wër ko bëgg bëgg naan ci ndox mi borom ni leen dama il faut ngeen bàyyil ma ci dara kon xam ngeen ni metti na woon na lool waaye barab yooyu li muy metti metti ñoom ñi ñëpp kenn ci ñoom taxul woon nga dengi dengi sa pas-pas sa am am sa man-man lépp lépp nga joxoon ko sa borom kon nag dafa doy sëkk ñu misaal leen ñooñu ngir ñu xam ni lu jamono jaxasoo jaxasoo ab julit war naa làmboo làmbaay yi nga xam ni mooy muñ démb dinaa joxe misaal ci alhaji sëriñ Gueye ah gàmm gi nga xam ni moom lañ mujj fekkee fii ak moom booba alal ji maanaam li nga xam ne moom lañ ci war a def xol bi ko joxe mu ngi fi loola it mu ngi fi te fas yéene ko ci fas yéene na ko cee def te def na ko ci sax nag waaye ba waxtu timis baas bi ñu war a dugg ngir war cee def nit ñi ñu war a jàng ba waxtu timis baas bi nëppul waxtu timis fekk na ko ci àll bi ngir taxawal bis bii utim ndox fekk na ko timis te at ma ca topp la gàmmu ko gën a neex la ko gën a jàpp kon nit li nga am li li nekk sa kanam muy muy pas-pas na wér te nga dox jëm ci waaye lan la ko suñu borom fayee mooy man mii bi may gàmmu si baas bii ma fekk baas bi ngeen gis nii bi may gàmmu si man fi laa ko fekk te talaata laa ñëw ah, altine laa ñëw ki ko fi indi benn dong taxawul fii ni dem maa koy jàppale moo fi indi bâche bi bâche ko bu soobee yàlla bu noppee mooy dellu si waat baas bu mel baas bu mel ni baas bu mel ni yi nekk ci biir kër yi moom sax bëggoon na ko te mënu koo am waaye gis nga suñu borom ni muy def ni muy def ab jaam li muy li mu lay jox du du sotti lépp ci sa kanam xéewal yi ñuy xéewaloo Sëriñ Tuubaa liggéey te moom ci boppam xéewal yi ñuy wax la ca ëpp fekk ko fi moom amu ci woon soxla waaye xéewal yooyu fekk ko fi woon xéewal yi nekk ndindi Sëriñ Tàkkoo xéewal yi nekk fooy sëriñ bi wax xéewal yi nekk fii ci kër Nganda bi fi bi fi barab bi um, kër Nganda jafe woon naa ñëw lool bi fi bi mu neexee ñëw ak bi fi sëriñ bi jógee sorewul kon loolu nag muy bind boo xam ni képp kuy am murit buñ la koy jàngal deesul sori war nga koo mën a dégg leçon bi nag mu ngi jëm ci ñan dëgg-dëgg mu ngi jëm ci ndaw yi ndax dañoo gis ci jamono bi ñu génn mbooloo mu baree bari bis bu set ñu ni téeméeri nit ak nangam faatu nañ ci géej gi lu tax ñu ni dañuy wuti koom àdduna ndax kat suñuy waajur suñuy soxla bari nañ ci luñ bëgg a faj te mënuñu koo faj kon lii muy xaru moo ñu moo ñu ko war a moo ñu war a faj moo ñu war fajal sunu soxla waa ma ni Cheikh Mouhamadul Fadal Xaadimul Moustapha mooy waajuram Cheikh Mouhamadul Fadal ak Cheikh Mouhamadul Moustapha nettali naa leen fii nii leen toog nañu li sëriñ bi liggéeyaloon na leen ay fan yu gudd a gudd jàppatuma nu mu tolloo ba ñu génnee ngir neexal leen sëriñ bi dencut ci wërsëgu àdduna lu ta lu ñu mën a xéewloo lu dul cere ju wow joo xam ne dañ caa defum ndox teg ko ca naaj wa ba mu sekki ngir ñu mën koo jëfandikoo Cheikh Mamadou Fadal moomu ak njabootam ku ci bëgg am mbasin doo ko jënd dañ koy jënd indil la ko waaw loolu nag di waaye diggante boobu diggante bu sori la diggante boobu loola loola mu la lu ñuy doon def ak bi lii di am résultat bi lu soree sori la li sëriñ Gueye doon ji fii ñu bari taxaw ci ci digg dëkk bii ni du fi amee mu ne dina fi am lu ne mu daj ko ci loola tey jii la résultat bi doo koy tàmbalee am te damay wax ne day doo koy tàmbalee am dara tàmbaleegul sëriñ mi ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool man du ma dugg ci kii ndax yooyu da indi jafe-jafe waaye euh, doomu aadama suñu borom dafa wax ni xulixal insaan min ajal dañoo bind doomu aadama ci yàkkamti mu waxaat ni wa kaanal insaanu ajula doomu aadama dafa yàkkamti waaye nañu teeylu te ni teg li war a ñëw yonent bi sallallahu alayhi wax na ni doomu bi bi mu amee ñeent ñett ñeent fukk ci biirum ndeyam bokk na ci lañ ko bindal te dootul far mooy wërsëgam kon ñi koy wuti te das sa géej ga mooy wërsëg wi ñu amoon dafa jeex tàkk ñu bëgg a bokk ci milliardaires yi te waruñ cee bokk bu ñu toogoon dund waaye li ñu war a am nag junni lay ñëw ñaari téeméer ñetti téeméer ba mu jeex waaye est-ce que dañu fee indi fii ci àdduna lan moo tax ñu indi ñu fi est-ce que dañoo indi ci àdduna ngir ngir ñu dajale koomi àdduna laaj boobu nag suñ boroom a ñuy tontu dafa wax ni dama leen a bind yéen ak jinne yi ngir ngeen jaamu ma bu ñu ko fàtte li tax suñ borom binduñu mooy ñu jàmm ko moo tax sëriñ bi bi muy defal boppam identité dafa wax ni abdullahi wa xadimu kon lii rek moo war a nekk suñu identité dëgg la nag ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi war nañoo wax ak ñoom ndax bu ndaw ñi fëkkee seeni bagage kenn ku nekk jug daw ngir bëgg a xaru ji ndax yaakaar tas na kon ñoom ñi nga xam ne ñoo war a dugal yaakaar ci biir doomu aadama yi war nañoo wax ak ñoom yaakaar a tas kon ñi nga xam ne ñoo yor loolu nañu góor góorlu ba gone yi amaat confiance ci seenum réew réew du développé mukk te du ndaw ja ñoo ko développé ndaw nag il faut que mu toog il faut que ñu yaakaarloo ndax kenn xëyul ta li ngay tabax loo boo yoroone million yor fukki million yu tabaxub terrasse loo yàkkamti yàkkamti di nga muñ weer ak nangam ndax il faut que ñu def fondation gas tegu tabax teg raax loo yàkkamti yàkkamti il faut nga mun kon nii la àdduna nii la àdduna bindoo kon ndaw li nga xam ne moo war a tabax àdduna dañu ko dañoo war a xëccaat ko indiwaat ko ci li ñuy wax espoir espoir nag nekkul ci suñu loxo dëgg la képp kuy kilifa war ngaa wax ak ñoom waaye dëgg-dëgg nag ñi nga xam ne ñoom lañ dénk alal réew mi war nañoo góorgóorluwaat ba ndaw ñi am confiance ci seenum réew yàlla na borom defal yàgg fi ndax li ñu war a ànd li ñu war a liggéey yaa ko war a jiite fii kenn soxlawu fi dara loolu moo fi am nag sëriñ bi kii soxla kenn soxlawu fi dara waaw li ñu bëgg rek mooy barab bi jàpp nga nekk ci kanam ñu nekk ci sa ginnaaw loolu rek loolu rek la na ko ñëpp jàpp na ko ñëpp jàpp bëgg ñun ñun ñëpp nag mag ak ndaw taal bëgg nekk taalibe Sëriñ Tuubaa dong mooy sunu yitte yeneen yi ci dis yëpp luñ ci am rek mën nañ koo jox bala nga koo xam nag ñu gàmm bés ba ngoon poos boo fi làmb doo fekk dara te kenn ku ci nokk kenn ku ci nekk ci ñun foo toog jataay ba nga toog bi ngay ñëw la ngay gàmmoo yaa ko dugal sa poos lépp luñ la jox it fas nga koo joxewaat kàdduy sant yi sëriñ bi ñu ngi lay sant waaye di sant sëriñ Abdou Lahad Guèye mi nga xam ni mooy xalifa yu gàtt lay doon rek ndax kàddu yi ñu war a wax suñu Mamar wax na ko ba pare dafay mel ne jaaduwul woon ñu jël kàddu rafet guñ ci rafet njort rafet nañ ci njort ndax mbir yi su doon bàyyi mortala daf fa jóge woon 2007 2008 dana xaw a sooxe ndax booba taxaw amut woon waaye dafay mel ne nit ñu baax ñi lañ fàgg woon bu ko yàlla bëggee àggale am na yoon wu koy teg mu mel ne bàyyi mortala téyel na leen ko ba ngeen dëgër ba ñime mu doo ko dem kon yal na yàlla mottali li ci des suñu xarit la suñu wëllëre la réeréen roowuñ ci moom dara te yàgg gi ak gudd gi ak lépp mottale ci loxoom nag waa maamaa yan foofu naa soyam ko su fi la am loolu suñ borom moo ko garanté ba pare loola moom na ci sa sa sa xel rafet na ci sa njortu dëgër dana baax dana sotti bu àndee coobare yàlla incha allah Baye Serigne ñoo ngi lay ñaan ci barkeb Serigne Fallou ak kóllëre gi mu seqoon ak Serigne Bara nga dogal ñu ci barkeb Serigne Serigne Fallou mu yàgg fi te wér waajur yi ak maamam yi tàmbalee woon lépp mu àggale ko mu sotti coleet dara bañ ko gàllankoor. te wéral cër yi ak sunu waajur yi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ci turu sëriñ bi di e, sant it ñi nga xam ni ñoom lañ bokkal dëkk bi ñëpp muy sëriñ Moustapha mi nga xam ni mooy magi sëriñ Xaadim di e, xalifab sëriñ Mor mu ngi ci biir. Euh, nekk ak ñun ànd ak ñun barab bi ànd ak sëriñ bi barab bi kon moom it ñoo ñoo bokk lépp xëy na kàddu cant yi dañuy tuddu tërëm rek waaye euh, moom mbir mi ñoo ko bokk bu ko defee di sant it euh, soxna Ami mu yóbbaale njaboot gépp ndax kenn ku ci nekk sa taxawaay rafet na ci sëriñ Cheikh ak mi nga xam ni ñëwut jote nañ waaye mm, terewul Euh, xolam ak lépp mu ngi mu ngi ci barab bi mook sëñ Omar ñoo daan ànd sëñ Omar dégg ngeen kàddu yi mat na sëkk te jot xam na ni ñoo bokk mbir mi kon xëy na kàdduy cant yi jóge ci ñun di jëm ci moom xëy na kàddu yi jottali la rek waaye euh, moom ñoo bokk lépp kon waaw kon bu ñu jógee ci ñi nga xam ni ñooy bokk yi di sant yi kilifa yi fi teew yëpp xëy na mënee suta jaar ci tur ñëpp ndax ni jataay bi melte xaw a yàgg tuuti waaye euh, ñu ngi sant ñëpp rek képp koo xam ni euh, Pape bi muy présenté jox ni joxe na saw tur euh, ñu ngi lay sant ca cant ca tur woowu ci noonu mu ko tuddee waaye it képp koo xam ni saw tur ñëwul nga xam ni rek fatt moo ko waral waaye ñëpp sëriñ bi mu ngi leen di mu ngi leen di sant bu baax a baax boole na ci Serigne Abo moom Serigne Sidi xëy na Pape da ko fàtte woon sànq Serigne Bàcci Diop Kalsaan yàgg na fee ñëw ci barab bi Serigne Jibril Diagne bu kàdd euh, moom waaw waaw moom Serigne bu kàdd nga xam ni euh, Serigne Ablaye ñëpp xamoon nañ ko ci barab bi ren ñëw na fi ngir feddaliwaat tànk kóllëre yooyu ñu ngi koy sant bu baax a baax euh, Serigne Cheikh Mokhtar Diop. ak waa communauté rurale bi sëriñ Xaadim moom sëriñ Cheikh Kajoor ah, xëy na ku ma gis rek ku ma tuddul te eh, kii nga xam ngeen xam ni rek mbir mee demee noonu te it mënee suta jaar ci turu ñëpp waaye nag kenn ku nekk xam ni eh, sëriñ baa ngi lay sant bu baax a baax bépp kilifa goo xam ne bàyyi nga sa yitte bépp dong boo xam ne bàyyi nga sa yitte ñëw ci barab bi mu ngi lay ameel ak kàddu yu cant yoo xam mu ngi koy jaarale ci man te lott naa ci joxe ko soxna yi nag ñoom waxtu nekk dañ leen di beral seenu cant ndax bu nit ñi mënee yàgg ci barab bi eh, yaakaar naa seen taxawaay la loolu nag yaakaar naa soxna am mi mën na cee jiitu waaye mm, day jëmmal rek waaye ñoom ñëpp dañ ciy dugg muy sunuy soxna waaye di it ñi nga xam ni mooy taalibe yi nga xam dañu bàyyi seen yitte ñii jóge kokki ñii jóge màkkasaar ñii jóge kër maxaali ñii jóge fu nekk ñoom ñëpp rek kenn ku ci nekk eh, ñëw ak ñu ñu jóge ci barab yi sore sori duggi oto ñëw waroon a toog dooni gan summeeku bokk ci ñi nga xam ne dañuy defaral gan ñi ñooñu ñëpp kàddu cant yi nga xam ne ma waroon a jóge ci sëriñ bi te mu matale ma war koo jàllale bu matul rek maa ngi koy jéggalu waaye na ngeen xam ni kàddu yi mat sëkk kon yàlla nañu suñu borom defal tawféex ba ñu gën a nekk jaami yàlla ñoo xam ni ngërëmul suñu borom rek la ñu wut ak ngërëmul sëriñ Tuubaa aqulu qawli hada wa astaghfirullah ñu jox kàddu yi sëriñ tàkkoo mu ñaan dugal ci sunu yitte yëpp rek kenn ku nekk la nga soxla nanga ko tàllal dugal ko ci waaye nag nañ ci boole suñ borom tin ñu ba sunu jëmm ji mu yàggal ko suñu kanam jëwriñ ji loo wax borom gu gaaw koo def na yay ju bokk waa axlu diwaan ya seen mbooloo ma xam nañu la beti wilaayati yaa yor fondement ba bu wér jërëjëf jërëjëf ah sëriñ bi dafa am lu ma di sëriñ seexu Seexuna sëñ Fallu Mbàkke mii nee na mba ah, ne ñun ñëpp ñu bokk maase ñaanal sëriñ Tàkko mii sa guddal aw fanam wéral ay cëram ba lépp loo xam si yéen a ko liggéeyal magam ju baax ji sëriñ aboom sëñ Fallu sa borom yeggale ko ba mu yegg ca am na ci yéene ci am na pas-pas te yéene nag kon nag ñun ñëpp ñu bokk maase diglu sëriñ Tàkko moom sëñ Fallu asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi ne bisimilah rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi noo ngi leen di nuyu noo ngi tàmbalee ci sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. di ànd ak yéen di sant sëriñ Tuubaa di bokk sàkku ñu bokk ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha sama borom yàggal ko fi dolli ko wér àggaleel ko yéeneem bàyyi ko mu xelam barke Sëriñ Tuubaa kon noo ngi tàmbalee ca sëriñ Mayib di sant ba ci képp ku laal ci moom dina di la ñaanal tawfeexi Sëriñ Tuubaa amiin Mbàkke ci jukki itam alaaji sëriñ Gueye sëriñ Motaale bi jóge bëkki demoo Njaay li ñu wax ci moom wax dëgg yàlla dafa doy loolu lépp liggéeyu mag ñal waaye moom kon matal na liggéeyam barab bii mu taamu tëdd fi yàlla bu ci yaakaaram tas. amiin amiin moo tax li def li santaane. foofee barab la boo xam ne bii ku wutal sa xel war naa dal si yow. ku ne it mm, kon nag noo ngi sant bu baax a baax. Mm. sant Sëñ Fallu mi doon joxe kàddu yi léegi ñu ànd ak moom di ku baax mënumaa wax ci moom lu bari. waaye damay tënk rek gannaaw waxtu yàgg na te ñëpp ton nañ ci toogaay yi donte jotaay bee neex kenn ku ne sa tooy ba bëggootoo jóg. moo tax waaye jotaay bi yàgg na waaye man bëggatumaa dem fenn ngir jotaay bi ndax waxtaan naa ci yàlla xam na ko fara soññee mu ko jërëjëf Mbacke kon noo ngi nuyu njabootu sëriñ Gueye gépp naa ko tàmbali soxna Ami mhm. di ko ñaanal tawfeex sëriñ bi ak sunu sëriñ borom bokk muy sëriñ Fallu mhm. ak soxna Momi Gueye ma ci ko yónnee nuyoo di ko ñaanal tawfeex sëriñ Fallu Mbacke ku baax la te dox na ci mbir mi lu bari suñu diggante ak sëriñ Seexuna waaye témoignage yi ñu def ci sëriñ Seexuna mhm. man defe naa ne doy naa ci doonu lu may faral di wax sa waaye nag gannaaw ñëpp wax nañ ko ma itam danaa ci yokk la ma cay wax donte li sëñ maam sëñ sëñ sëñ maam Maamoor ñoom wax day na sëkk sëñ Seexuna bëggam sëñ man li ma ci xam doy na te mboolem ku yàgg ku du bokk ci sëñ bi ñu la tudd defe na ne rek yow lu baax li mu soxla ci sëñ bi ci yow la koy dox waaye man lem ci dox ci man doy na yaar yi ci mujj rek bu ma ko tuddee dana doy te ba nu xamanteeg tey mësul am tiraanga jum defut ba ci bi may jaa bi may jaale si sëñ moo taala mii keroog damaa ñëw mu soppi ko ngan goo xam ne keroog man su ma yëgoon ànd ak waa kër gi ñëw si waaye mu fara ko def kan mag goo xam ci kanam Cheikh Abdoulaye takkam ji mu mooy ci bari kon sëñ Cheikhouna bëgg gi Sëriñ wér na ci moom man keroog ba ma ko xamee tey xam naa ne ba ma ko xamagul ak bi ma ko xamee du benn lenn rek mooy laa ci am ci maanaam loo xam ne lii bu ma sañoon mu demee noonu mooy dama bëggoon a maa ak moom ndax li mu li mu bëgg li ma bëgg ci moom man ko ci am ci moom bari na lu muy bàyyi xel ci lu ma war a loo xam ne ñàkk maase ko waral waaye téewut xelam xalaatam aw aw lépp loo xam ne lu mu xam ne luy defaral nit la koy def ci man sama daara ji dafay dem sax di fa jëlee ay yoo xam ne luy defar daara ji rek ma ko yëg di leen woo woo njaboot bi di waxtaan ak ñu alaj baaram yi ànd sama doom ji doy na ci seere alaj sëñ Guèye mel na ne xamoon na démb waaye xam na te waaye mel na ne xamoon na ëllëgam ndax bisib tey bi bàyyi woon na ko xel ba mu koy samp mu dëgër xamoon na ne samp gannaaw yàlla may na ko mën a sampe xamoon na ne bu sampee dana taxaw yàlla ko yàlla àggale li yéene moom sàmm njabootam maa ngi li ñu nuyu ñëpp di nuyu mbokk yi di nuyu julli yi ak mbokki yi dëkk bi itam ñi fi nekk nga xam ne ñoom itam ñoo ñoo xam ne ñoo ñoo sant caam te bokkoon ci cosaani dëkk bi sëñ seexu naa mi am na ku ñuy wax Modou Caam ko xam ne Italie nekk mboole maa moom kookee bu ma ci xoolee danaa xam ne ñoom ñi sant caam si nekk ci dëkk bi ay gor lañ ay julli ay taalibe lañ waaye ñu bëgg lu baax lañ fi nekk si noo ngi ñaan nag ci barkeb Sëriñ te yàlla dooli jàmm ak xéwal dëkk bi it ni ko suñu Cheikh Bara waxee yàlla nañ ci fekk lu bari xam na ne lu mu wax luy am la mm. lépp dana fi ñëw insha allah yàlla nañ ci fekk lu bari dama ànd ak wér ak mucc ku fi teew yàlla na yàlla faj sa aajo ci wàkkeb Serigne Touba ci wàkkeb Cheikh Ahmadou Fadil Mbacké waaleykum salaam wa rahmatullah